مصطفى إذ جاء يمطار من تمر المدينة قل بعيره بتاعه المختار من كرم وصليا kooku nee na topp naa iblis ñeent fukki at gisuma njariñ ci ginnaawam ne fa farrantu ma daw ila rabbi jëm ci sama borom loolu mooy mooy dëgg boo toppee iblis ba mënoo koo dab tournel wut ji yàlla dëgg naa ci alaji bu saaw mu ne montagne bu juutoo juutoo juutu ñu solal la ci dàll yu ri tax ba yaa ponkol mu bëri doole jaare la ginnaaw buux la bu la yàlla dimbaliwul sa jëxlaal ci suuf dégg nga wax montagne bu juutoo juutoo juutu ñu solal la ci dàll yu ri tax bu ca yemoon neex waaye bayaax ponkol mu bari doole nag jaaree la ginnaaw ca kaw montagne ba buux la bu la yàlla dimbaliwul sa jëx laal ci suuf am déet mu ne montagne ba moo di àdduna ñaari patt dàll yuri tax ya moo di bakkan ak bànneex ponkol mu bari doole ba mooy iblis ah mooy iblis bàyyiwul kenn dafa mës a romb yonent yàlla insa yonent yàlla insa ne ko iblis foo jëm iblis ne ko fan yi day damay baana baana yonent yàlla insa ko ñaata marchandise nga yore mu ne moo ngi nii ñeent yonent yàlla insa ne jaay ma ko iblis na déedéet jar na ba noppi dama koy yebbi ji seen borom seen borom laa koy yóbbul nii jar na ba noppi yonent yàlla insa ne mën naa koo xam iblis ne ko bismillah mu commencé ne alkibru sultaanu xoolal bi mu jëkkee mu ne rëy rëylu jaay naa ko buur yi ndax rëy amul rëy rëylu rekk am juddoo ci maas gi yaroog ci maas gi xëy toog ci sa gàngu naay ne ku fi wax dara ma kii la danga kii rek waaye kiiwoo am déet mu ne rëy rëylu jaay naa ko buur yi man iblis ñu ne ko ak ban mu ne alxiyaanatu tijaara ware jaay naa ko commerçant jën benn potu sokola wut dëwlin def ca ba mu doon ñaari pot <laughs> gisoo leen ko fi ak ëpp benn potu sokola nga def ko ñaar yow ngay diwal gaa yi rek di diw rek wala doon jaaykatu jën jaayu jën ba mu des mu fanaan nga xëy rek tub ci suuf su tooy si suufu géej gi def ci kawam ne ko ci xëpp waaye jën gi jën moom mbaa du jën déedéet jën gaa ngi door a génn ci géej gi léegi te fekk fanaan na suuf see tooy waaye jën nga woow na mu ne jaay naa ko ñiy commerce di jaay mu ne ko ak lan mu ne alxasadu suyuux iblis nee na kiñaan jaay naa ko sëriñ si ma dégg ci sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum borom xam-xam bu bari ba yal na yàlla leeral bàmmeelam mu ne gëleemu kiñaan ba mu bàyyee ko ci yàlla kër sëriñ si la yées ba muy jóg bàyyi na fay pe peppi dugub Iblis na kiñaan jaay naa ko sëriñ si dañuy jox kamara benn conférence kamara def tem bu rafet te neex thème bi jub lool tege ci yoon Camara pare ñëpp di tàccu sama xol bi bon. may wo ñaaru rek ndax jéppi kamara mu pare gaa yi ne ma waaw thème bi kamara def nag oustaz Sidi noo ko gisee ma ne kii na de moom daal yeewu na de du ma ne mukk am na xam-xam yeewu na de moom daal mën na wax de ah tabarkal la jàmbaar la de doone bu boroom xam-xam la da teggi wax jooju mooy kiñaan bi iblis na jaay naa ko boroom xam-xam bi mujjee nekk duma ko wax fekk laajuma jigéen ñi ñu jox ma ndigal bi mujjee duma ko wax fekk laajuma di jigéen ñi ndigal ñu jox ma ko ma wax Iblis nee na fenn jaay na ko jigéen ñi yéen a ma wax loolu damay bañ saaga moo tax ma laaj leen <laughs> waaye góor ñaa ngi koy nangu léegi ne waaw génn ci kër gi dem ba ajak jak nga dikk sa jëkkër ne la foo bàyyee ko nga ne moonte génnuma kër gi de te toj nga àll ba ba dellusiwaat mu ne wax lu dul dëgg jaay naa ko jigéen ñi te góor ñaa ngi koy nangukat man waxuma góor ñooñu sax mais ñi ma ci gën a soof mooy góor ñi dugg ci xeesal bi léegi xeesal seetluwoo woo leen xeesal gi góor ñaa ngi ciy dugg ku bëgg leeru kurus da koy wér di leeru kurus ku ko nawee keneen ba tax lay xeesalu billaahi boo wóor na yàlla boo fatoo ba génn bi waat naa ko ci am golo fanweeri nawet yaa koy gën a ñaaw ndax xeesal amul ngor xeesal daa amut ngor mën ngaa fatu ne gaa yi maa ngi ci ndàngam maa ngi ci ndàngam nga ne tëll gaa yi ne ii saa yi leer na de waaye bul yàgg ci naaj bi de fatuwaatu am na góor ñu ciy dugg léeg-léeg nga séen ñu ñu éviter ci tele bi damay bañ a tudd turu ñi may waxal ñu yóbbu mais léeg-léeg nga séen ay nit ci tele bi nga séen seen loxo yi nii rek ci ngay xamee ni kii mu ngi ci xeesal bu metti ñu ci bari dañuy def seen garam bu bay nii ci plateau bi di wax naan nii man saay bal bi rek tey génne loxo yi moo gën a gaaw yàlla nee na bu leen soppi jëmm yi ma leen jox yàlla nu mu def nit rek moo gën ci moom nu mu def doomu aadama rek moo gën ci moom te suñu yaram yi dara manqué ci kon li ñuy wutati li ñuy wutati dara manqué ci fu yàlla dàmm ci yaram rek war ngaa xam ni foofa war a damm feneen fu damm fu dul foofa docteur am ca yoon ma lay wan ne yàlla defar na doomu aadama na mu ko war a defaree waaja nee nag ba ko ba ko juróom-bennee leen mooy àdd aytum duxuulal jannata falam taamalu bi koo gis moo ngi bëgg dugg àjjana te liggéeyul lu koy yóbbu àjjana dañ koy liggéey àjjana ku la ko yombalal rek moo la ko xaj ku la yombalal àjjana rek xañ na la ko yombewul noona de dañ lay fekk am loo liggéey loo yore sa sëriñ bi nga yaakaar doon laa mën a yóbbaale ci biir loola ndimbal kay na ca fekk loxol boroomam am de ba ko imaam ba waxee ca jàkka ja dof bi jóg ne ko imaam wax nga dëgg sama caaye ba ba muy lakk keroog xaaj bi yépp maa ko fay fayul xam ndimbal da cay fekk loxol boromam dégg ngeen sàng bi nettali ko fii sëriñ Fadilu Mbàkke ba mu jógee tuubaa di ñëw Dakar ki mu fekk ci yoon bi mu taxaw ci arrêt bi arrêté oto bu ci nekk benn oto yóbbaalewu ko mu arrêté na ko oto sëriñ lu Mbàkke la sëriñ Fàllu ne chauffeur bi yóbbaale ko oto bi di nong nong ba ci yàgg rek mu yëg neex waa ji ne ko jërëjëf Mbàkke nii ngeen di def ëllëg rek di ñu yóbbaale biir àjjana sëñ Fàllu ne ko na la fekk ci arrêt bi yóbbaale bii bu la fekkoon ca ñaay ba kenn du la yóbbaale na la di fekk ci are bi are gi mooy jaamu yàlla moo tax àjjana ku la ko yombalal moo la ko xaj bii moom moo gën a bari sëy dinaa Omar bii may bëgg a teg nii moo gën a bari wastaxal wastaxaltum bi ayubi ixwaanikum fala taraw na ayubahum mbay doon de bii a bëri léegi wastaxaltum bi ayubi ixwaanikum fala taraw na ayubakum da ngay gis ku am 20 di nettali liibaru jaamoon te boo yendu woon ci sa 20 kilos rek jant suux doo ko géexal di nettali liibaru genn waa liibaru jaamoon koo gis mu toog rek moo ngi waxtaane di yàq deru doomu aadama te nga am ci loo xamante ni boo ci yemoon rek doo ko jéexal Hmm? yàkkante der wax ci nit ki lu la wóorul li sang bi waxoon keroog boo demee caméra ko def waa boo demul nekk gaa nañ ko di moytu soxlawoo ayi bi jaamul rek te yonent bi nee na nit ku def dara nga di ko xoolee loolu ba xarab ko ca balaa ngaa génn àdduna def lu ne mel balaa ngaa génn àdduna rek def lu ne mel balaa ngaa génn àdduna rekk def lu ne mel benn waay dafa ànd ak ay nit ñuy dox ba ci yàgg ñu ne ah nañ jaar côté bii am luñ ci xoor ñu jaar ca rekk am ngelaw lu ëpp seen bët yi tëju ñoom ñépp seen bët yi tëju ñuy dox di dox di dox ñu ne fu ñu koy tijjee di dox ba ci yàgg rek kenn ci ñoom rek futbal mbiib mbiib soufflé yi ñuy soufflé mu jël ko ne pir bët yi ne neñ leer <laughs> mu ne gaa <laughs> gis naa de gaa yi ne ko lool lu mu mu ne xanaa mbiib ga gaa yi ne abal ñu ku soufflé rek gis ku soufflé rek gis ku soufflé rek gis biñ demee bay waaj a dugg kër ga nekk am ku ci ëppal lool ne may leen ma ma gën a leeral mu ne pir mu tëjuwaat mun <laughs> muy wut mbokk ne gaa yi tey ngeen a soufflé mu gën a leer boo lay wan ni nit ñi yéenewuñu seen bopp seeni mbokk li ñu yéene seen bopp seetal kooku bi mu defaatee mu tëjuwaat mu bëgg a tëjaat ñële lan moo tax du ko yemale ci boppam dafa am mbaax bu bon am bon bu baax dafa am mbaax boo xamante ne mbaax bu bon la baaxul mbaax la mais dafa bon am bon boo xamante ni bon bu baax la kamara xam nga mbaax bi bon mooy ban mbaax gi nga yemale sa bopp bëggoo keneen jot ci boobu mbaax mbaax na waaye baax bu bon la mbaax dafay génn néeg génn ëtt dugg pénc roofu nit ñi génn dëkk di wéy di dem mbaax noonu lay mel bon bi baax nag mooy bon bi nga yemale ci sa bopp bëggoo keneen bon boobu mbon mbon bu baax la waaye bon bëgg ñi nit ñi bonaale boobu bon baaxul moo tax nit ñi dañuy soxlawoo ayibu jaambur te ñoom ñu yore loo xamante ni buñ ca yemoon rek jant suux te duñ ko mën a nettali mais nañu noppi ci deru gor yi lisaanaka in atlaxta yakul ka Seydi Aj nee na sa làmmiñ boo ko boyalee lu ñor nga wax lu ñorul nga wax mu tëj lu la kaso mës ngeen a gis ku yaru ba ñu ne nañ ko tëj ji kaso gis ngeen ku seede ba mujjee kaso sa war làmmiñ li sëriñ Cheikh di wax sa war làmmiñ jaru ko nit ñi dañoo am joti wax te làmmiñ boo ko téyewul loo dugg rek moo la ca dugal loo dugg rek moo la ca dugal gis nga loxo wax naa ko keroog nii la ko yàlla bàyyi ci biti mu ne bàcc tànk yàlla bàyyi ko ci biti mu ne bàcc loos noona yépp ci biti waaye gisoo làmmiñ 32 gardien deux portes moo lay wan ne yàlla def na effort ci moom yow yaa ci des teewul waa ji danaan tëll wax mu suba duggaat moom téye ko daa jafe moom waaye nit ki bu ko contrôler boppam rek mu téye ko beneen bi ci des xol bi bu laabulee pour nga téye làmmiñ day jafe naa ko mës a waxtaane juróom-ñaar yoo xamante ni boo ko waxee ba mu jeex kenn am ci tomb na teg salaatul fatiha fere waru koo laal naa ci mësa wax juróom-ñaar yoo xamante ni buñ la ko wàññilee ba mu jeex nga gis benn ci sa jëmma bul rëkk salaatul faatiha tegee ko ne le gis nga xol mooy waaja moo tax alaji mansuur ne wa tahiril qalba min xeqdin wa min xasadin wa kulli wasfin zamimin bayna al aqraani li talxati raqaba wal ayaamu dayiqatun wa man tawaana yafutuhu lxayra yaa jaani waskurhu yaskurka fardan aw la daa malain laa tansa rabbaka fi sirri wal mooy waaja njàpp yeesal njàpp am na solo de cër yi set wecc di nes na si waaye xol ba njëkk a set moo gën yaram bu set ah nit cër ya dana set wecc xol ba ñuul kuk kooku moo ngay nax boppam sang bi wax na ba tàyyi illa man atallaahu bi qalbin salim yàlla kenn du dikk ci moom te sa xol laabul bu laabul rek booy dikk ci moom du la nuyu du la wuyu sax moom yàlla subhaanahu wa taala ki mu bëgg mooy ki xolom set laab takkul dara téyelul kenn dara iñaaneewul kenn dara lu waay am mu yéene ko ko lu waay di waaja am mu jàppale la ba nga am ko bu ko amulee di ko wëri ji mais du la mas sa mukk ndax am ngi nga ko am koo koy waaja mais koo xamante ni mbir mu nit am rek yaa ngi ëñ ëñi waru ko fi amee lan moo tax yàlla jox ko ko te maa ngi fi ah da ngeen bokk demi da ngeen bokk judd dangeen bokk fi ngeen bàyyee ko ca maam aadama day yéen ko bokk waaye wërsëk yi tolloowul wërsëg yaa tolloowul waaye ca maam aadama yéen ko bokk moo tax lu jar a bàyyi xel la ku xolam tilim rek arrêtal kurus gi génn ko jéem koo raxas kurus gi it mën na koo raxas mais danga koy nangoo mais raxas ko ci kurus gi tilimaatal ko ci kurus gi kooku du raxas te salaatul faatiha nag mooy salaatu ba sang bi yi mu fi lim ni fu mu la fekk war ngaa mën a rëkk salaatul faatiha war naa tax nit gën a fonk salaatul faatiha bi ci tegu keroog maa ngi koy wax ca zawiye ñoom xaaji ibrahim mii ma ne leen salaatul fatiha moom salaatu da yëg ni moo gën noobu la ci salaatu yi da koy misaal ak turóondoom rek maa ngi koy wax keroog ma ne nañ ko misaal ak turóondoom turóondoom saar bi jiitu ci ci ci alquran nu ma tudd soratu fatiha fatiha suñu salaatu bi nu mu tudd salaatul faatihi gis nga ñaar yi nu ñu nuroo nga jël turondoom ci ñam yi misaale kook moom salaat moom salaat salaat gis nga kër gi bu ñu naree reere salaat salaat ay gën a noobale ci kër gi ba balaa ñu koy yéeyi seetlu leen ko ñoom pombateer ca biir cir ba ñuy wëndeelu ci tàngoor ga rekk ñu min yàpp ca cin la ñuy windeelu rek ñu min ña ca des ñëpp yéen xam nga leen lim leen ñooñu ñëpp ca biir cin la ñu tëj leen nekk tëj rab cin lay windeelu rekk salaat na kiy togg sàng ma tuuti te weer ma ci kaw ngelaw li di ma ëpp ba balaa ñoo yàq te duñ ko sàngee suñu ndox yi de bineegar la ñuy wut jaxasat ñum ñooñu def ca yëpp ba mu mel ni mu war a mel ñu sangee ko salaat tegee ne avant loolu nag dañ koy raxas ak ndox ba noppi weer ko ci kaw mbaal bi ci kaw nii du ngeen koy gis yéen it gis ngeen affaire bi weer ko ci kaw nii ak mbaal bi muy yëngatu ngelaw li di ko ëpp moom muy xaar ña ca cil la ñoo nga ca tàngoor ba moom di bërëngu rek bu ñu demee ba yàqkat di waaj a yàq salaat ne sangam ak beneen ba mooy boobu ñuy def yecca aju yépp diw ko ko marine bi diw ko ko tegee ne la bu ñuy waajee yàq xoolal moom day day day wax niñ ko war a def dafa naan wërala ma bool bi ku ma ko ku ma sa gis salaat ci diggi ndab moom mooy mooy wër ñépp parce que mooy salaatu bi gën ci salaatu yépp ya ca digg ba yépp mooy salaatu ya ca def ay salaatu ummi salaatu ibrahima salaat ñoo ngi ca diggi ndab la salaat wër leen rek turaloo salaatul fàtte ya ca digg ba bu la bëggee sonal waaw waaw moo lay di moom salaat foofu laa jëm imaam <laughs> dama ko bëgg benn benn la gis nga ah imaam ku ko xam na <laughs> gis nga niñ koy wëralee noonu mu wër ndab li moom doo ko jàll dugg moom day bañ sax ku ko jàll àgg ci ndiggi ndab li baatoo la rek kay jàll salaat na ko seetlu ci ndab da ko war a jël boxoñee koog lee moom du nangu nga ba ko fa romb dem ca diggi ndab la parce que mooy bunt bi guwa baabu boo jëlee salaat moom ngay ëmbee ak lële ñoom kii yooyu nga ëmb ko door a paqueté yóbbu <laughs> fan fii moom salaat boo paquetee yóbbu moo ci moom ngay jaaraat itam jëlaat keneen door a yóbbu parce que mooy salaatu bi gën ci salaatu yi ña ca digg ba ñooy yeneen salaatu ya taw gis nga moo gën a woyof ci bool bi tàngoor du ko laal boo yàq delaan wërala ma ndab li te sotti ñi tàng ca digg ba man bëgguma tàngoor gi laal ma bu ñu xawee sedd la koy jëli ji muy yóbbu nit kaa gën a baadoo la nekk bu reeree ba noppi ndawal baa nga ca digg ba pomme de baa nga fa ya ca aju yëpp saf-safal yaag ñama-ñama yaa nga ca ñu ne la waaw jëmil loo reeree tey nga ne salaat <laughs> turandoo salaatul fatihi la moo tax mu ëpp bayra salaat ya ca ndab la yépp moo tax ndab la yépp mu ëpp ca bay ñu ne la salaatu boobu nekk fu mu la fekk war nga koo mën a rëkk moom salaatul faatihi waaye nag la ca gën a neex pour nga rëkk ko mu gaaw mooy xol bi na set nit mooy setal xolam kiñaan geek siisaate geeg bañeel geeg yaay fexe ba dindi ko yow waaw man lu ma dal man yii may def nii bopp ba léegi maa ngi ëñ ëññi te yóbbuwuma fenn yaay toog di yeddi sa bopp man def naa nit lu ne iñaana iñaanaa na eh, ma iñaanee ku ne te ñi may iñaanee ñoo ngi avancé man maa ngi dellu ginnaaw man lu ma dal yu sew sew yii may def téema koo bàyyi imaam ma kan nee na yu sew yi ñu sew yi rek ko ko dese téema koo bàyyi nga yeddi sa bopp ba bàyyi yépp dem ba xol bi laab weex tàll ni ko sang bi di fëggee mu ne kii set na wecc nga dem ba àgg ca mais nit day roy kilifaam ci yi muy wax ba ñu iñaanee nit teggi lépp wa tahiril qalba nga laabal xol bi min iqdin ci mbañeel wa min xasadin ak kiñaan bu ñu toppee béyit ba misra u bi day ëpp nga ne wa kullu wasfin ba zamimin baynal aqraani bépp melokaan boo xamante ne dañ ko ŋaññee nit nga tegg ko ci xol bi setal ko wecc boo paree nag booy njàpp day set wecc bokk na ci liy setal xol bañ a fanaan ak sobe ba bët set bokk na ca te jullit ñu bari duñ ko bàyyi xel nit bu nekk ak soxnaam ba noppi na jóg sangu ji bu paree julli ñaari ràkk mais fanaanook sobe ba bët set day tax sa yàlla du gaaw day tax xol bi di woow te xol bi bu woowee nekk day tax yàlla du la wuyu ci dara te day tilimal xol benn waay mës naa laaj lan moo tax ñaari ràkka yàlla dugal ko ci maanaam euh, pare ca sangu set ñëw ñaari ràkka yi pour nga dellusi la pour nga dellusi am na foo tollook soxna si xamatoo yàlla yow bon dëggal reetaan yu suufa yooyu yéen a gën a xam li may wax mu naan <laughs> kay yow lay gën a xam li ngay wax ñuy reeree bu suufe ne la jullil ñaari ràkk del si waat ñëw nga door a wuti ji leneen tëdd mais fanaan sobe bu bët set buñ xam lan moo da ciy fekk ba ca tegu ca juróom-ñetteel ba ca yii may tudd mooy wa dafantum mawtaakum falan taxtabiru booboo bëri nekk rob sa néew te doo ko gëstu ji waa ji nee na réew mu mu bari yàlla côté ay ñaanam nañu seet Sénégal fu mu ci toll rob nit rek fàtte ko te Sénégal maa ngi koy wax démb xaw ma kan laa ci doon waxtaanal démb démb la xaw ma tey maa ngi wax ne sénégalais yi ni ñu mënee dëj mënuñu ko faje nit nit ku feebar moom faj gi waxuñu ci dara mais dëj ga bàyyi leen ma gàddu ko te waroon a mën a gàddu hôpital ba def nga ko gàddu dëj rek la nit ñi mën rob sa néew fàtte ko nit du ko def néew danga war a dem di ko ñaanali ji man day am na lu ma jéem ci sang bu tedd bii ba mën ko te mooy ñaanal ñi faatu di ko wàññi ci sa kurus ñaanal ñi faatu di tudd seen tur boobu moom ku ko mën nanga ko di def waxuma la dara mais day yokki nit ci àdduna dina Omar ibnu Xattaab dafa mës a dem ca armeel ya ziyaara ji kon moo lay wan ni ñiy dugg ci armeel ya banque seen loxo ne duñu ñaan fuñ ko teg fan lañ ko teg amul wéeruwaay Seydina Omar dafa dugg ca biir armeel yi ne assalaamu aleykum ya ahlal qubuur armeel yi na teg kenn wuyu ko mu nuyoo nuyoo kenn fayu ko mu toog def ay ñaanam ba jóg di dem benn néew ne ba ne ko wa aleykum ya Omar ibnu Xattaab Omar ne ko duma la wuyu sànq maa ngeen nuyu kenn wuyoo waa ji ne dama lay jox ñeenti sëri ci yóbbaalal ma ko waa àdduna te nga ne ñu bàyyi ci xel Omar na tekk di ko déglu parce que kàddu gee ko ñor mu ne ko ban ak ban waa ji ne ko malakul mawti wa ruuxu ka mu ne Omar mufrat laa koy def nekk mais yóbbul ko ñépp ndax yow kese yaa taxaw dama koy mufradal waaye boo àggee def ko jàmm ñépp ko moom malakul mawti wa ruuxu ka Omar yëgal ni saa yoo xëyee malakul mawti moo ngi ci sa ginnaaw bëggul garaam bu bu rafet bëggul mbax ne bu rafet neexalee ko kër du tax mu dellu neexalee ko oto du tax mu dellu xaalis bu bari am naa ko bànk du tax mu bàyyi la ruux gi lay laaj te ñun ñépp ah saa yu ñu xëyee malakul mawti moo ngi raaj jox ma topp ma rek sii di jox sii di jox ma sii di jox ma <laughs> jox ma yàlla ne ko malakul mawti wutu jil keneen sii di waragul dem mu door la bàyyi dem dee moom ku koy misaale jëlal sa bopp koo ko misaale mu ne kii ni ma bañee yàkkamti ma dem nag mu ne ko waragul dem wutu jil keneen malakul mawti door a bàyyi koo ko wutu ji keneen te ñun ñépp la koy def chaque suba chaque suba ñun ñépp amul ku malakul mawti du ñëw ci ñëw di la raaj ruux yàllaa koy mujjee gëdd ne ko bàyyi ko kooko demagul mu door a dem ñun ñépp la koy def chaque suba chaque suba ki téye buftu tuba moom chaque suba mu laaj yàlla moo ko téye rek ne nii buy ëf rek àdduna di tukki saa yu xëyee rek ne yàlla ma ëf ma ne ko yow it ah. téyel rek ma ëf ji rek ngelaw li mën naa dugg chaque fois mu laaj yàlla ma ëf wa ida nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yowma idin wala yatasaaluun waaw bu ko ëffee rek chaque suba malakul mawti moo ngay laaj ruux di laaj rek wa dafantu mawtaakum moo ma dugal foofu rob néew yi di ko fàtte malakul mawti ne sayiduna omar ibnu xataab omar ne ko labbayk mu ne benn ngoog sag suba malakul mawti laaj ruux hmm? nit ñi war nañoo bàyyi xel sag suba mu laaj ko topp nit ki rekk mu ne ko bi ci topp mooy sax yi ci biir bàmmeel ñoo ngi xaar yàppi doomu aadama mooy seen añ waaye nag dégg ngeen fi sang bi ne am na ñoo xamante ni sax du lekk seen yàpp yaram am na ñu ne rek sóoratu mulki ku koy jàng sa guddi sa yaram du yàqu ci suuf sóoratu mulki hmm? te sax yi li ci gën a yéeme dañoo am ay téléphone ni ñun sax yi ci biir bàmmeel yi ki ñu rob tëngëj sax yi woo ñi nekk Medina kay leen foofu bu amul fii am na dañuy wootante de ñoo ci biir bàmmeel di xaar mu ne ko bi ci topp mooy suuf saa ngi xaar yaxi doomu aadama pour mu muccaat ko suuf si yax yi rekk la soxla mu ne ko boo àggee waxal ma waa àdduna alal gi ak donu ji nañ ko bàyyi xel bii nag moo jar a taxaw alal ji ak ñi koy donn nañ ko bàyyi xel wa maaluka fi dunya wa warasatuhu alaaji bu saaxu nee na bis a ngi ñëw ku ci nekk war na koo bàyyi xel balaa moo agsi muy juróom benn jiim yi mu ne bis a ngi ñëw jàll jalaalahu jël sa ruux ñu jàll ca armeel ya tas sa jalu alal ca kër ga jaale la mu ne kenn du ko romb nit ki nekk yaa daan nekk ak moom nga dëkk ak moom amaana yéen a bokk benn néeg bi ngeen di fanaan benn ndab yéen koy bokk ci kër gi di añandoo mu xëy génn àdduna nga jooy ba sa ronga ñi tuuru sa yaram nga téye ci jaat ba ñu ko ca armeel ya nga am semaine fàtte ko ca armeel ya yow yaay kan est-ce que xam nga wóor la rek moo tax waa ji nee na ñu bari fàtt nañu seen seen seen néew yi te dee booy jaar nii moom moo ngi fii taxaw boo jaaree ne moo ngi fii taxaw kenn mënu ci mucc la daloon waaja kër yi dafa takkaloo ñu xëy rek première kër am ko ci faatu ñu dëj ko ñu xëyaat deuxième bis rek deuxième kër gi am ko faatu ñu dëj ko troisième jour troisième kër gi am ko faatu ñu dëj ko waa jaa ngi dëkk cinquième kër ca quatrième kër ga ñu xëyaat itam am ko faatu ñu dëj ko waa ji na toxu jot na balaa bët di set waaye seetal dee lay daw dee lay daw pour mu bañ a ñibbi mun toxu jot na sët bët bu fi setee rek tabarkal la mu ne dama bëgg ku may yóbbu ginnaaw màkkatal mukarrama ci lu gaaw ndax ma daw dee jii ku ko mën rek na ma ci dimbali gaaw ma fay la alal ju mënta jeex ndax am naa ko mu jékki-jékki rek am lu sëgg ci wetam ne ko waral man de mën naa la yóbbu ci gëmm ak xool xef ak xippi rek ma teg la ginnaaw kaaba ga mu ne ko yow nag laa doon wër ñaata laa lay fay waa ji ne jaru ko bàyyil ba ñu àgg ñu waxtaane pay bi waa ji sëgg rek mu war mu gëm ba rekk gis kaaba gi taxaw ca ginnaaw bàkkatal mukarrama mu ne ko jara jëf yow mi la yàlla na la yàlla fay mu ne ko yow akan sax mu ne ko annaa malakul mawti mu ne ko yàllaa ma déey ni diw warul faatoo senegal ginnaaw màkk la war a faatoo nga waroon a aj ren pour ma rocc sa ruux aj ba fëse yàlla programme dee bi du ñëw ci sa kër pour nga programme sa xel daw fi bu la xeer mooy fi nga war a deewee mu ne ko jox ma ruux bi fi nga daw jëm moo nga fa taxaw fooy jaar wa dafantum mawtaakum falan taxtadiru rob sa néew fàtte ko boo duggee ci armeel yi am na bàmmeel yuy fekk yooy fekk ñu raaf ku ko mën di defar na ko di defar lekk-lekk mën nga cee amee yiw bu bari nga yëg ni kii boroomam géej na fee ñëw ñi moome kii faatu géej nañ fee ñëw fàtt nañ ko bu yàgg te amaana waa ji bi mu faatoo ñoo sédd la alalam gis nga gaa yi alal ku ko am danga cay jiital balaa ñu lay jiital wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda huwa xayran wa a'zama ajran wastaghfirullaha inna allaha ghafurun rahim alal des koy jiital yonante yàlla insa dafa romb benn ndaw di dem wuti ji yàlla ju dara xale gi ne ko insa foo jëm mu ne ko yàlla juraxul dara lay wër xale gi ne ko yóbbaale ma moom laa soxla yonent yàlla Insa ne ko nañ dem ñu dem ba àgg ci yoon wi yonent yàlla Insa jënd ñetti kilo mburu dénk ko xale bi ne ko téye ko ba ñu xiif xale bi mujjee ci ginnaaw ba ci yàgg dóor benn kilo gi yonent yàlla Insa kilo mburu kilo mburu jafewul dóor di da ngeen ko mënta lekk lool du dara kilo surtout kilo léegi yi doxut ñu doxaat ba sori xale bi dóoraat beneen kilo ba ñaar ya jeex te yàlla insa xiifagul ñu doxaat ba xaw a sori xale bi yeggali beneen ba daa xiif rek <laughs> bi ñu àggee ci yoon wi ñu gis ñetti cëggi wurus xale bi ne yonte yàlla insa yàlla ji may wëri ji mënatumaa dem ndax xaalis gi mu gis zuyyina linnaasi hubbu sahawaati min annisaai walbanina walxanaatiri muxantarati min aldahabi walfiddati walxayli musawamatan wal an'aami walxarsi zalika mataau lxayaati dunia wallahu indahu xusnul maab mais xale ji moo ngi teg bëtam ci alal ji mu gis yonte yàlla eesa ne ko nañ wuru ji yàlla ju dara xale ji ne ko dej naa alal ju rax dara mu ne ko nañ wëri ji yàlla ju raxul dara xale bi ne alal jii duma ko fi romb di dem ndax jëggi wurus ji bu ci xàmpee benn rek benn rek mu xàmpati ci tuuti jaay rek mën na cee am ay milliards yonte yàlla eesa ne ko waaw yàngook maa ngi wëri ji yàlla ju raxul dara mu bàyyi fa xale ba xale bi bu jëlee benn cëggi wurus bi teg ci benn mbagg bi jël beneen bi teg ci beneen mbagg bi bëgg yenu beneen ba am ñaar yi am bu daanu moo lay wan ni alal kenn du ci doylu alal kenn du ci doylu daa gis ku am cinquante mille mu ne billaay bu ma amoon cent mille jamil mii cinquante mille laa koy may mu am cent ne jamil non tuuti ba ma am cent cinquante mille non bu ma ko amee ah mu am cent cinquante mille ne jamil <laughs> may ma rek ba deux cent mille alal noonu lay def doomu aadama moo tax ku ci nekk la nga am dimbalee ca boo ko deful rek da ngay xëy perte mu jéem jéem jéem mënta sotti ñu jekki-jekki rek ñaari bandi génn ci biir àll bi yow lii lan la sama alal la loo koy doyee maa ko moom foo jëm ak moom sama kër laa ko yóbbu gis nga ñoo la ëpp doole dangay mën a jël benn ñun ñu ñun ñaar ku ci nekk jël benn wala ñu rey la jël ñett yi xale bi ne d'accord mu jël bosom ñaar ñi ku ci nekk jël ñu waaxu ànd ñoom ñu doon ay mbokk léegi di dox ba àgg ci yoon wi gis benn tabax ñu dugg ca déedéet juum naa ci xissa bi naa dellu ginnaaw yonte yàlla insa fi mu fëggee mu muy wan xale bi ni am na lu ko yàlla may mu seen benn picc di naaw mu woo ko ci ismulaal picc mi wuyu ko ci turu kaw yi picc mi ñëw yont yàlla insa sokki ko defar ko ba mu rafet jox ko xale bi ne ko lekkal xale bi lekk mu fëgg montagne bi ñett cëg gi wurus yi ci la génne wurus yi ba mu génnee tege nag yont yàlla insa di séddale daldi ne xale bi bii maa ko moom bii yow yaa ko moom benn bi ne cëru ki lekk mburu mi la xale bi ne maa lekk mburu mi maa ko lekk ba mu jeex gisoo fi mu ko nattoo booba laa fàtte woon mu ne bii maa ko moom bii nag yow yaa ko moom bii nag ki lekk mburumee ko moom xale bi ne maa lekk mburumi yant yàlla insaan ne ko jëlal bàyyi kook alal ji dem bi ko ñaari bandi yi fekkee foofu nekk ànd ak moom dem ñu dugg ca tabax ba ñoom ñaar ñu xiif bëgg a lekk ñu ne nañu yónni xale bi moom mu dem jënd la ju reer bu jëndee reer bi bay ñëw bu tegee reer bi rekk nañ ko sëkkatoo dóor ko mu dee ñu reeta dem jëlaale bosam xale bi bi muy dem iblis dugal ci xelam ni na nga poson reer bi ah ne ko fexeel poson reer bi ñoom ñaar ñu lekk dee nga jël sa wurus dem xale bi poson ñaari mburu yi muy waaxu bay dugg ca tabax ba rek kenn ki yëkkati yat bi kenn ki ne ko déet boo ko dóoree ñam bi day takk suuf bàyyil ba ñu reer ba noppi bàyyil ba mu taaj ndab li ñu door koo sëkkatoo mu taaj ndab li rek ñu dóorandoo ko ba xale bi nekk ci diggante dund ak dee di xor-xor yi ñoom ñuy xàqtaay ñu ne nañ reer nag door a dem ñu sukk ca ndab la ca reer wala ñu ne di ñibbi àllaaxira xam nga tooke lu ci garaaw boo tàmbalee doo mën a arrêté looloo ci garaaw ñoom bi ñu reeree ba noppi ñu ne këndëm ñibbi àllaaxira xale bi wurus yi des fa moom mu nekk ci diggante dee ak dund yant yàlla insa dem ba am yàlla di dellusiwaat fekk ñaar ñi dee xale bi nekk ci dund ak diggante dund ak dee mu ne ko doon gi ma doon yonante nga gëm te gëm nga wéru moo tax deewoo bu gëm nga wéroon doo dee ndax ñooy ànd te dara du la dal wa faaza man baaya al awliya misla allazi baaya al anbiya moo tax alal li mu mën mooy nga jiital ko balaa ngay jiitu yow boo jiitoo doo xam ñi ngi koy bàyyil ban façon lañu bu dee defkatu lu bon luñ ca def rek nga am ca kotaaba bu dee defkatu lu baax kazalika kazalika mu ne ba ko fukkeel nekk mooy wa xultum anna al mawta xaq falam tastaidu bi xaaji mbay koo gis mu ne dee dëgg la te kenn préparé wul dee dee des koy préparé ci jaamoo ko yàlla dee des koy préparoo ci nekk ci njub dëgg naa ci sëñ Habib mu ne sénégalais yi foog nañ ni alal day faj gàcc koo gis rek mu ne alal gàcce lay faj mu ne njub ak doylu mooy faj gàcc waaye du alal sëñ Habib nee na bari na ku am alal mu dugal la ci mbir génnee la ca nga dese gàcc mun a njub ak doylu mooy faj gàcc te ak ay dëgg moo tax fa tabaarakalaw bi ko fukkeel mooy booba mooy ku ci nekk wax na ni dee dëgg la te kenn préparé wu ko waxuñu waaj nga jënd ay eh, kii perekaal muur sa bopp waxuñu waajal boobu déedéet sàngoo ne yàlla pare naa comme dee des koy waaj boo koy def mu lay yóbbu waaj gi mooy dangay ngay jaamu yàlla nekk ci yàlla loo bëggul dee fekk la ca bu ca ne ndax xamuloo kañ la yàlla di ñëw loo bëggul dee fekk la ca rek bu ca ne wala boo ca nekkee sa fit bu mu dal bañ caa nekk nag moo gën a wóor ndax kenn xamul nan la yàlla di dikkee moo tax yonent yàlla insa yàlla mës na koo wax ne waxal sa jaam yi ni feeg dégg ñu ni fay naa safara ba kenn du fa dugg ëllëg bu ñu naagu feeg dégg ñu ni ba ñépp dugg bu naagu feeg déggoo leen ni iblis dee na ba ñu rob ko ba ngeen xam bàmmeel ba bu leen naagu bu leen naagu mukk benn ju xam yàlla bëgg yàlla miin yàlla ci waxin iblis ci yooyu la ko naxee fexe ba doon def ko fajkat iblis ne waa ji ku mu laal mu wér iblis nekk ca nekk ca nekk ca moom nekk ca moom boobu mu koy may doole ba waa ji xaw ca bew moo tax mooy waral wàlluy laahi di am wàlluy seytaane di am ba waa ji xaw caa bew ndeke iblis a ko buux waaye moom déggowul ak yàlla mu xëy rek iblis bëgg mu am gàcc mu feebarloo doomu buur gi buuru dëkk bi la iblis feebarloo bo doomam dem ci buur ne ko xam naa ku ko mën a faj buur ne boo ko gisee kay sama doom ji moom rek laa bëgg mu ne ko acca moo ci sa loxo loo ca def rek jàll na iblis jël ko yóbbu ci sëriñ bi ne ko faj ko sëriñ bi jël loxoom di ñaanal xale bi iblis dugal xale bi wér ndax boo ko sànni woon feebar nga mu delloo ko ca saase xale ba wér buur ne ah kooku day kon fajkat la wóolu naa ko saa yu ma amatee ku feebar rek nañ ko yóbbu ci moom gis nga iblis li mu def day yombal affaire bi ba mu yomb bu àggee fa mu lay war a toroxalee nag jafel ko mu koy rek roofaat xale bi feebar xale bi nag xale bu jigéen bu rafet la xam nga ni ma ko waxee war nga xam ni kii rafet na iblis daal di koy roofat feebar buur ne yóbbu ko mu faju ji iblis téye loxoom yóbbu ko ca waaja ba mu àggee ca waaja iblis te xale ba wér mu bañ bañ ne xale bi du wér ba parce que moo koy rof feebar ba mooy seytaane noonu lay def sëriñ bi faj faj xale bi mënta wér iblis ne ko bàyyi ko mu fanaan fi daf ko bëgg a bàyyi ko mu fanaan fi nga faj ko bu ma ko waxee buur dana nangu mu dem wax ko buur buur ne nafa ne ak ah, kooku moom wóolu naa ko comme xista la ci benn guddi la lépp yem xewee mu fanaan fa waaj a toog ba ci yàgg iblis ne ko gestul sànq ba léegi yaa ngi jàkkaarloo penku rek yow it gestul xale bi xool ko ba xam mu ne ko bul gestu bu baax tuuti rek góor gi nii la def rek bëtu xale bi mel ni day dagg yaram bi yëguloo ni jigéen ju rafet bu la xoolee ba xeelu la day mel ni laam set a jaar foofa <laughs> xam ngeen lii may wax Seydina Omar comprendre nga in nazarat anka nazaratal ghadba anka xasaa u ca borom ibnu duraydu ba mu ko ba mu ko xoolee rek bëtu xale bi tombee ca mu tombee ku ku dijji ay bët nag lay ñuul ne kuk lay weex na tàll yéen ya sëkk mu ne ko kii bu la rëccee tey doo ko dabu ji de yow xoolaat ko xoolaat ko bu baax rek ib mu gestuwaat rek seen ko mu ne ko bu la rëccee tey doo ko am de profitoo ca ba am yu ca xew ba doom juddu mu dem jël doom ja dem suul ko reyaale yaay ji suul ko moo waral indi bari'um minka mu xëy rek iblis daw ci buur ne ko laay rey na sa doom ja ba rob ko suul na ko xam naa fi mu ko suul te loolu la ci bëggoon ñu àgg mu won ko buur buur jël euh, waaja pàndar ko pour ñu rey ko bi ñu ko téyee ba koy waaja rey iblis ñëwaat ci moom ne ko mën naa la xettali mu ne ko kan <laughs> mu ne ko man mën naa la xettali fii nga taxaw nii ñu lay waaj rey mu ne ko noo may xettali mu ne ma da fexe sujootal ma man iblis sujootal ma laa tasjudu li samsi wala lil xamar hmm? mu ne ko sujootal mu ne ko mënuma laa sujootal dañoo yeew samay tànk yeew samay loxo iblis na ko yomb na sujjóot du dara lu dul yëkkati bopp rek dugal yéene ba wàccee ko def ko te nga def ko ndax man ma xettali la doo dee mu yëkkati boppam defal ko iblis wàccee bopp bi rek iblis ne laay inni bari'un minka maa denc yow yàlla rek lañuy ñuy sujjóotal nga bay sujjóotal yow de perte nga mu randu noonu lañ ko reyee bari na yu ñuy jiiñ iblis nag mais bakken la bakken xam nga di wax ak sa bakken sa bakken di wax ak yow dafa doy waa dafa doy waar benn xale bu jigéen seet si la ay minuit wi sol mini dugg ci sa néeg yéen ñaar kese ci biir néeg bi léeg-léeg sa bakken day wax ak yow saa yi gis nga ko nga dëgërlu na noono ah non dama tal yooyu <laughs> non ba kenn doy waar léeg-léeg mën naan la xoolaat ko rek yow gis nga ko heure bii xale bu jigéen bu mel nii nga ne non ah yooyu na la yow tournel bu baax yow xoolal kii sa bakken la de mooy wax yow nga koy tontuwaat mu naan la moo xale bi ni mu la yabee ak ni mu la miinee gàccal ko nga ne non ah non ah mu ne la ba mu rëcc la tey noonu lay nekk di jolagant ak yow di jolagant ak yow ba nga làpp ca moo tax bëri lu ñuy jiiñ iblis du iblis bakket la weeru koor ku ci def dara rek ñun ñépp gëm nañ ni yonent bi moo wax ci xadis ni weeru koor bu jotee dañuy jéng iblis kon ku ca def dara yow du iblis am déet kon su ko defee yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla sàmm ci barke sayyiduna Muhammad feegar bi ñuy dégg yàlla nañ ci am dégg rek waaye yàlla bu mu dal kenn ci barke sayyiduna Muhammad yàlla nañ ci yàlla muccal te nag gëm naa ni dañ ci mucc ndax li fi sang bi joxe ku ko def rek amal yàqin ni mucc nga ci loolu rek kay wax ji boo amee kóolute ni li ma sama kilifa jox ma def ko day muccal na ma kóolute googu yàlla yàlla fekk si la wa tabaarakallaahu moom borom xikma la borom xam la borom mayu yàlla la tabarkal la fànn yépp baaba Chérif Ibrahima dara def ko ndar te yàlla dafay bëgg sëriñ boo xamante ni doon na sëriñ ba noppi moo am xikma ci àtte am xikma ci wax ak doomu aadama yi am xikma ci ni muy joxe nit yi ñaan am xikma ci ni muy jëfandikoo ak diggante mook jaam yi yàlla yooyu daf koy bëgg mais bëggul koo xamante ni dafay sëgg ci téere bi rek la mu wax rek mu dagg ca tabarkal la bëggul yooyu